minasaitan rajim wa inni ya'uhisuha bika wa suryataha minasaitan rajim rabbi a'uzubika min hamasati sayatin wa a'uzubika rabbi an yahdurun Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana mamon umur neen say mam soyo to soyilaw ga yaman dir bo teram li yaay moussa ba xisa mbate yasin mu ñep ci tar goro ak ngeen baye xel soxna yi mom tuddul soxna jaara nak tuddul jaara tudday xamu nu mu tudd mariama xam nga fuñ ko tudde yaay xiisa bu ko xamul mooy ki ñuy wax siisu kiris xiisa yaayam lañ tuddee soxna jaara yaayu hisa nag mu ci gën ci jigéen ya yaa inna la astafeki wa tahraki wastafeeki ala nisaa'il alamina waaye li muy bax bax baax déggul jaaratu lay te nag bi ko yàlla di may dom amul programme parce que jibril mo ray biram rek mu am jigéen 9 mois la war a ëmb inna inerta la bu yam dom day son yalla ne ko li lan la mu ne ko garabu tagal mu ne ko gësamal lek bo lek am doom jëloo sonn waxu si ilayki bi ci tasaxat an lay rotaban moom doomu gën a jaaxle te lu may wax sama mbokk yi su ma demee jekk naa am naa fi doom njaaloo ma muyu yàlla oo ma borom kër lan lay nekk ni su ma demee daal ànd ak tout tànk bi ñëw ci mbokk yi tàcc ko Mariama Jóob nga de yow sa yaay niñ baax ak sa baay sa frère sax Aaroona ab yonente la nga am doom jëmul baay yaa waxti Aaroona maa kaana abooki imraa sa maa kaana mi ki baqi yaa yàlla wax liir bi tontu lan sa yaay liir ko ma ko leen fa asharat ilayhi xaalu hal ini hablillah ati kitaba wajalay nabiyan wajahalin aynama kuntu wa sayni bisra wa zakati ma dumtu hayya léegi nag mbokk yëpp seen xol sedd ñu ne ah Mariama njaalowut yàlla dogal ci moom lii ndax liir bi wax na sëñ Tuubaa ne na ko yàlla gindee nu ko raw la mu gindee hadani lazi hadal muntabaza min ahliha fasilahi muntabaza kon yàlla yàlla def jàmm ku fi teew nga am ngërëmal sëriñ Tuubaa sëñ Sadio Samb moom bu ñëwee dina gën a yéeg jàngkat yi nag ñu leen di jégalu xam nga laa day waxtaan ka moo tax affaire demee nii rek waaye ñoo ngi jégalu tuub di ñaanal ñëpp jàpp ku fi teewaam ngërëmal Serigne Touba yàlla na ko def sëñ Fallou jërëjëf sëñ Saliou Raye. laa tansa مختوم أيا خادم المختار لا تنسى فمن ينسهم فالمتمة المختوم الفائز عفيفا بمناء ما فات سريا لو نور ثم نور لي والمبغي الهدى والنار يطلو ناني وبلاي نيم المهيمن عن المين أما اغتنى والأقوى ملكت بربي مخجل الموت والإلهي همت الذي أنزى أزل فرقك الخليل sant nañ bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baax a suñu xol sedd na suñu xel dal na barke borom touba ah bis bi nag liñ doon ñaan suñu borom subhanahu wa taala ci barke borom touba danaka amna ba kawé suñu jort bon yàlla yalla dafa ñep jamm di nuyu nak bu baax di sant bu baax suñu kilifa suñu serigne sëriñ Ibrahima Mbacke moom alxaaji maam Cerno moom sëriñ Cheikh Awa Balla ah daam seen 18 safar sant nañ la bu baax a baax a baax a baax sëriñ Fallou Seck raaya dégg nañ suñu xol sedd na sëriñ Saliou Samb moom nag moom la ñu jox kàddu gi man moom xam na ni man ñan moom mooy sama xarit ku ne laay déglu ci yoonu Serigne Touba waaye moom xam na ni fépp mu nekk fekk naa ko fa suñ ko wooyee quartier général fii laay jaar ndànk dem TFM fa laa nekk tànk parewul dama ñibbi sama xarit la mu may defar ay teraanga yu bare bare bare bare bon Serigne Saliou Samb ñii de Serigne Dame Sène nee na yéegal nañu baar bi mais xam naa ni di nga ko yóbbu ci aras man xam naa ni baar bi dootul wàcc fii ba bët set day gën a kawe barke borom Touba bis bi nag li muy rëy rëy li muy tedd tedd li bis bi di baax baax dafa am ñoo xam ne nii moom lañ ko duppee dañ leen tuddee bis bi ñuy ay pare bi ay waa kër sëñ Bamba di ay jullit di ay gor di nit ñu baax bi ñu bëgg dëkk bi ñu tuddee leen bis bii. ko ju rafet na yor barke borom Touba maa ngi leen koy seeral ku baax gi nii. sa sëriñ bi ñëw toog nit ñu baax ñi ñëw toog waxtaanu katu borom Tuubaa yi ñëw toog yaa ko liggéey yaa ko jëfe sëriñ Ibrahima ñuy toog maam Thierno mi ko jur bu ñëwoon xanaa xamoo jant bi mu sëtiim ku mel ne maamam ne sëñ Tuubaa Fatma maam Thierno mi ko jur sëriñ Cheikh Awa Balla la bàyyam tudd bokk ndey Moodu Awa Balla ak Faati Awa Balla May Awa Balla dëkk Awa Balla soxna aw Balla la seen yaay tudd sa maama njëkkee ko sa Mbàkke ci yoon yi law bi tëral la na jox ma a soxna mi ci baar yi moom fa soxna sa Mbàkke ñu jox sa jéey moom fa soxna Fatou sa Diop moo jur maam Thierno Aminta Mbàkke ak soxna Faatumata Bintu Aminta Mbàkke la ñu jox ko sëñ Daam Abdourahmane Lo mi jàngal ñi fi gën a jàngal ñi fi raw moom fa Mariama Lo Faati Lo Xari Lo Roqoy Lo boo demee Daara Xuddoos boo nuyoo dan lay fay dan naan la bienvenue ñu jël amit loo jox ko sëñ Modou Moustapha moom fa soxna Mari yëngu ak sëñ Mbacke Madina mu jur sëñ Cheikh Bombali mi ci 30 bi ñu jël soxna Mari yëngu ba tey mu demaat Daaru Musi jox ko sëñ Modou Awa Balla moom fa soxna amit soxna Njóoba ñu jël soxna amit jox ko sëñ Modou Boussa Diagne moom fa sëñ Bass mu sëñ Modou Boussa Diagne mi jur ñoom sëñ Abdou Karim diwlin Binta yaay réew mi sëñ ko ki da ngay si jël sa maam mi jigéen ñi ñu jox ko soxnaam it teel a mu taawloo muudu aminata yàlla mu jur lingeer fat lingeer ba tey teeraa nga desaroo xanaa xamoo ku dul borom Touba sa maam ab dëkk ma ko mag da ngaa judd fekk fa dëkk ba waaye judd moom dëkk sëñ Touba sa maam rek ko ma sa def sa kër maam du nu gàccal xuraan waaye bu demee dooni di ñëw du nu daw nag ci jikko juddu jom daraja esprit compétence expérience Xaadimu Rasuul sa maam bi mu ñëwee dafa dugg nasaraan si battre corps bi daaneel tubaab bi dañuy fukki demel ñaar la jër Diop dexe la Samba Laye bu Fall Tiwaawoon Jéeri nga des Gabon sept ans zéro faute néew wooyu néew fi ngeen ma jëmee Xaadim borom nit ñi sa maam moo ko def waaye sëriñ ko jege si jëy sa maam jox nañ ko soxna Fall ndaak moom fa Balla soxna Fall Maxtar soxna Fall Mor soxna Fall Madou Maam soxna Fall moo jur Fatou Madou Maam Diop mu jur sëriñ Basiru mi ci péncum boppam mi boo ma sax ndox maa la mag mun la maa la gën maa la raw xaari may sama bàyyi njagami ci jum matar bi ci kokki ma samba gàdd ndaak waaye Cheikh Abdoulaye soxna Mariama Jaxate la lu duppe Cheikh Abdoulaye soxna Mariama Jaxate mbokk ndeyam soxna Fat Jaxate yaayu Serigne Saliou ak Serigne Soyibou mbokk ndeyam Serigne Saliou Fat Jaxate xam satu soxna jang balla soxna jang mbàkki soxna jang waaye xaari man mu suwaa bàyyi Serigne Fallou jëxëriw Serigne Bousso Cheikh Abdoulaye moo ne yaa bëgg Serigne Saliou xaadim borom jumaa ji bi mu ñëwee nag mbaa ko ñett yu dafa dugg dafa dëkkoog soxna su jaxateeg soxna soxna Fat jaxate jaxate am fa taayir da ngay dem àjjana soxna Fat jaxate li yaayam tudd mbokk ndeyam soxna su jaxateeg sëñ Mbàkke jaxateeg sëñ Abdourahmane jaxateeg sëñ Balla jaxateeg sëñ Amsatu jaxate Moodu Asu jaxate la seen bàyyi tudd même nu la dëkk jigéen bu ñuy wax soxna jëm si ne libaas lañ ko dóor si la libaas ak fat si la libaas ak matar ma dema libaas libaas ma pàtte ndumbe jang càmmiñal kuma daaru ma pateeg ma ñaaw aram sàll yaa si njaay benn gëti sëriñ saaliw borom ndooka borom njurul dongam bu yalwaan daan nari caaxaan daaram ya ñoo daan seen ñam ña neex na sëriñ saaliw mbakke ki seexal seex bee ci tuun sëriñ saaliw bàyyi sëriñ seex saaliw bàyyi soxna waalo bàyyi soxna moomi bàyyi sëriñ seex bàyyi sëriñ soi saaliw sëriñ saaliw maamam am sax soxna jang balla soxna jang mbakke soxna jang abdourahman soxna jang soxna jang si la Matar Mariama libaas libaas mu pattuñ bëjëng cam niñal kuma daaru Serigne Saliou juddu jikko jom daraja esprit compétence expérience sangu Seex Béthio Thioune mi ñu jooytu noppeeguñu Serigne Saliou ñu sa kër maam duñu gàc ci alxuraan waaye bu demee doon li ñëw duñu daw Serigne Saliou borom dookaa koo koy borom njurul waaye mbokk bàyyi kan Serigne Fallou jeex bi cam niñal ma bàyyi Serigne Abdou Karim yaakaar Serigne Saliou muy sëñ Fallu ci réew bi jàpp ñun mënee mu kunta yaay soxna meen xanaa xamoo xaadimal Mustafa dafa bokk ak ñaari doom Cheikh Abdou Khadir sëñ Fallu jeex réew bi bàyyi sëñ Abdou Karim soxna maa ab sa saar aw dikk kamara sëñ Bamba li mu bokk ak sëñ Fallu ak sëñ Abdou Khadir soxna aw Buso sëñ bu soobee ku soxna jaar mook sëñ bu soobee ñoo bokk ndee baay kon nag foofu rek laay wàcce suma kàddu. waaye waaye Basiru. xam ni am nga ndam. dama ne waaw. wolof de ni koo laaj dama la lay waaye aw rek bu doon assemblée tey ne am nga majorité bu kenn dox sama digg moom. Abdoulaye Abdoulaye sëñ Saliou dama ne. bu doon assemblée tey ma ne am nga majorité woote nag riis na waaye wuy see ku gën a riis sëñ Saliou Samb li may bëgg a wax ko gën a waaye a riis wuy seen la muy riis ñu riis wuy si laa ko gën a riis parce que nga dëgg sang bu tedd bii toog xam nga wolof day faral di wax ni ku wat siw jubbu nu jaabale waaye maam Cerno baayam mbokk baayam sëñ Maxtaar si Cheikh Awa Balla baayam tudd suñ mu daa balla bàyyi borom ñaari ci dar mbok ndeyam Cheikh mi ko doon di xëyee Dakar yenn si daarul Marnaan cham ñal fàtte aw balla mbokk ndeyam dekk naka aw balla aw ku mu ñun maam jeg wala muñ ma kilee waro waro bayam soxna Fatou sa Diop sëriñ ko jegi jadi jëy mu du faa xujja matar ko ko mi leen di baawaan ne njokk ba màkk sëriñ ko jegi sa sama mo tuñ ngëriñ lak njëkki naan taal ndiwul lakk ndiwul baraama sele tuj yilli lak kan lak fenn leen julli leen wala mare leen sëriñ kokki njëkk yi sa jéy yi sa jéyloo bal na mbër mbër gu sene ba dem ba mataar mataarum ndaam amarum ndaam ak mataarum ndaam daal sa nga xam seen bàyyi ba bëkkëru ko jur lismiloo ko jur samaano ko jur suuf yoo ko jur allin abdourahman ita abdoulxadar ñi leen sin na mooma borom mbàkk maxtaarum ndaam jur dem binta maxtaar géej ba mu jur alliloo sene ba gay mbër guloo sene ba gay juguloo sene ba ba gay na jox xujju daraam am ca ball xujju daraam yi maxtaar xujju daraam yi mbargaan xujju daraam jox ko sonu xujju gumba sey di ngib ñam ci suru xuju kumba muy samaam dara xuju kumba an seex xuju kumba faalo seyit maam jaan jeejeel ndaag ak mare ma xirit benn booy ak aminteel ak saa xewar Fatma bala sa buri sëriñ Mbàkke maaram Mamadou Xeyri Mamadou Kabir Abibulaay Sayid Mbàkke almaami soxna Fatma Abdoulaye am na majorité du ma guddal sëriñ Saliou réew mi nu ne ba sëñ Tuubaa ñëw ba sëy moom kenn mosu leen ay def maanaam maanaam waxtaanu maanaam maa demandu maanaam bokk ndeej bàyyi ñoom des Ndoumbane Samb la seen yaay tudd ma yore Ndoumbane ak Maxtaar Ndoumbane ak maa demoon Ndoumbane bokk ndey ak baay Ndoumbane Samb la seen yaay tudd Ndoumbane Samb ak Mbere ak Mbacco bokk ndey ak baay bara Ndoumbane ma ne daalu seen baay bu nu ma saa dajale doomu Kajoor rek bawal ci kawam rek lañ koy waaj mbirum ma dem ba jigéen jóg juju ba Njaay birim jéeme kumba bàcc borom ñi seen taaram sam may sa borom tara sa laay fàtte fan ma ci biir ñu boppam Mbere ak Mbacco Ndoumbane bara Ndoumbane ak jàngile ma sa benn loo bi ñëwee ba ca Buri ku yaay sa dugg siin maa demam jàngaat jirim di buur ma sambay bay bay hadiyatan ak may wa sadax sarax nañ ma ko wa samanan jaay nañ ma ko ci njëkk sëñ mag bi bokkul ak kenn du moroomu kenn kenn waru ko dendale kenn bu nu ko tudd di tudd kenn l'islam bi bi fi Seydina Muhammad ñëwee ak tey jii ñu toog góor gu mel ni Cheikh Ahmadou Bamba tegul tànk ci kaw suuf si ay loo gis am na kenn réew mi kenn ko yëlif mbër am nañ roi des arènes footballeurs yi am nañ ku yor ballon d'or bi entreprise boo dem fekk général moo yilif ñëpp loo gis am na kenn bu ñu nee seen Tuubaa kenn la ku taxaw fee guddalub sikki naan yàlla rek ay kenn xamoo dara lu ne la def na ca kenn yonent yi 124000 lañ 313 ca gën 25 ca gën juróomay urul asmi kenn nekk ca bopp ba seen Tuubaa ni katab anal muntaxaa xat faa xaman madaa waman yaati waman fii sa zaman wa huwa ak manul wara xalxan wa xulxan zahra wal mislu xattu lam yura walan yura fii siyami ay. wóor na sëñ Fallou yow xanaa njool makka gën gaa yi. muhammadun nasiruhu lam yati fi ma madaw abada abadan la yati mel ni yol makka dotu ñu mustaqam ala kenn la ci bir yonenti est ce que kenn ñol makka gi da yaq ci kenn yalla gi dara kon kenn borom tuba gi nu yaq kenn yalla gi lo gis amna kenn l'islam bi borom tuba kenn la ci deug la ku mel ni mom musse ñew barke borom tuba ku mel ni cheikh ahmadou bamba musse ñew ci l'islam amu ci lu fi way bax bax bu rasulullah jalle fii ngay féete sëñ Touba damay wax ne kullu nabi wa rasulin yabbaru لا اله الا الله وقل نبي ورسول يتبع خلف الوسيله 124 000 yëpp bu ndajee ñoom ñëpp fii la ñuy féete sans waaji te loolu xaw na ca rañaan nga de ci weer wii nu nekk nga xam ne tey guddig ñaari fan yi xaw na ci guddig 27eem ñoom Màkka fekk na leen fële ci Jérusalem ñoom ñëpp ñu dajaloo ci benn barab waaye sëñ Tuubaa nee na ni ñu jaxasoog moom saafoonteeg moom xam ko lan ko ne yaay ne ci kanam nu ne ci ginnaaw xat-xadda moogu iswaajo googu waxtara moogu meeras de zawin niqaabi wasaad fihim wa bana anhum wa sinanhum الارتقاء منها لعمري إسراب اله به بروحي والجسم ليلا للسماوات فبات يسري وجبريل السرى معه فوق البراق إلى أقصى النقايات بقول قد بات يسري وجبريل السرى معه فوق البراق لما عن الورد بهما وأمهم ليلة الإسراء وجاوزهم حتى دنا بارتقاء من سماء لسماء قد هذا فقر من هنا أسرى بالجسم الدهر بالافتراء صلي على سار السماء فوق البراق لسماء محمد وكان karima bi fi wasalmi khad baata yukhri khutiba Jerejeme borom Touba Jerejeme borom Touba Jerejeme borom Touba haka sa dimbali ko dimbali ko jox ko ko waay jox soxna si doon wax ku ko wax def nga lu nekkee te ñëwagul xale yi may kapp bi waaye bi mu ñëwee mooy kapp bi colonel la mais moom général xam nga xam nga colonel fi la affaire bi yam grade yi fi la yam général dañ koy nommé décret koy def nit maa ngi ci colonel général bi ñëw na mooy son mag Bichri yàlla nga gudd fan. bàkki Seexul Xadim noonu laa la bëggee ni ma xale yi bëggee laa loolu rek laa bëgg mën leen Abdoulaye yàlla na nga gudd fan sëñ may Mbacke ñam ak ñoom sëñ Ibrahima Seen ñi ak sëñ Salim mi fi bàyyi koog sëñ Dame li fekk muy waxtaan bi may ñëw ñoom ñëpp su may xarit la xam nga lu tax damaa bëggoon a doon cent personnes fu ma nekk ma taxaw fa ubbi bopp nit ñi ci sëñ Touba te mënu ko kenn laa mën a doon moo tax ko koy def pour pour man yaay maay dëgg la lu ma bëgg rek bëggal naa leen lu ko sëñ Salim waxaat waaw sëñ Darou Moussi. maam yi kee sa sëriñ Cheikh Ibrahima Fall dafa ñew mom mom mi moom kër gi mom mom moom daar gi moom sëñ Daaru ci buntu yi la jaar dugg ñu dem ne ko Cheikh Ibrahima Fall ñew na muni guddi leen xer yi tëral sàkket yi koku yalla da koo bàddil xajul ci buttu xam nga moy lan seigne daru lim bëgg lu ko ëpp la bëggal Cheikh Ibrahima Fall ma maam Thierno ndax yaa may dégg seigne Touba non la yaree woon mag ñi ñoo àndoon te borom Touba tax mag ñi ñoo àndoon aboori jaalu lay sëñ ki nga ma jox addiyaam dinaa leen wax ci moom benn baat bu kenn griyee nag bu kenn yuux sëñ Ablaye Diop rek laa koy may en 1900 la am doom tudde ko Cheikh Serif Hassan amaat doom yépp gànjool la xewe tasineer fa ñuy wax jaar amaat doom tudde ko Cheikh Aliou Fall at mooma ci la sëñ Cheikh Awa Balla maami kii feeñ sëñ Aliou Fall Mbawor sëñ Aliou Fall Mbawor ak Cheikh Serif Hassan ak sëñ Cheikh Awa Balla Cheikh Sidil Muxtaar yaa xafaaru zunóob ñoo bokk menn at 1900 la ñu feeñ tuddee sëñ Aliou Fall Mawar ba noppi bi mu tuddee sëñ Aliou Fall Mawar ba noppi dañuy ndax doom xam ngeen ku ma ko tuddee ñu ni maam Cheikh xamuñu ko ni Seydina Ali karamallahu wajhahu ko. ndax xam ngeen lu tax ma tudde ko ko déglul Cheikh Ibra Fall ca Tassinère en 1900 ñu ne ko bëgg nañ koo xam maam Cheikh ni dañoo xare Badar ba xare bi jeex xare Badar nag du tey démb woon moom xanaa ah yow mun bihi xat xafaraa zunooba man xat xalaraa kitaaloo rabbul waraa كبيرة كرما من الله عز وجل أيوة اسمناها من السماء خير وجل عظما إلى رئيسي كرما بسلم خير وكمنين خرب جيخ ما ملني كوي دلو شيخ رفال نينا سيدنا علي سيدنا علي دانيا لو فاس با تولك من أيوما ما خولكو ملاج ما أنا مانا كان مام شيخ نينا ما أجسما لهم داي جور بي مغيش بي بلد سمارون بوكتان مي أبو رجال الله باي بور نيي فناني تي يالا مفاسان تيك من كولري نينا kóllëreem ga ca Badar moo waral ma tudd ko sama doom ji tey Aliou Fall sëñ xaadim nee na daam wi ci la bokk waaye moom rekk ci beru yàlla warmaal ñeenti weer ci at mi am de benn bee beru ñetti yee taq moo tax ñuy wax sëxru rajabul fard weer wi li ma doon nettali léegi ci riñaan bi lépp ci la xewe yàllaa ko nettali ca guddi googam yooya xewoon ca guddi googa la Cheikh Mouhamadou Fadal gane jamono wéyal sëñ moo tax daana wax moom alaaji Fallu Mbakke yool ma ko diggam ne lay rek laa di cëb wuyul ponk l'islam yëpp jibril la ñëw wax ko si sayyiduna muhammad benn rek a tax yàlla may yool ma ko audience privée mooy julli guddi ga anniversaire ba xew mooy kësum ci weeru rajab ci la seex muhammadul faadal gane jamono waykat wa ne ca ama wasasin la feeñ fa Tuuba am nañu naa Daaru Salaam la booba ca moomaat la mbër mi génne daaru sanc si Tuuba Mbàkke ñëpp waaru ajjuma tey kësu rajab la takku jundul ilaahi dara ko mbër eh, may bàkku bisu keroog daam dani bu ko kenn nàmpal daa ñëw woor fekk jant bi so bu ko jox toqantal bisu keroog wax nan ni rasulullah yi ñëw na fi biir juddoom bii doonallaahi indi ya abdullahi moom la isaa waxoon di miim ga raw na buusaa buur buur ba defoon ba Isaa mën a wax ci biir muur moo def keroog Serigne lu mën a woor amul lor bi ga taway naa maa lahu nastaaxu salla aleyka akramul xallaaxu maa ngi ñaan ku ko jox addiyee Serigne Fallou yàlla nga fekk ay déwén déwén barke Seexul koo jox Serigne addi addiyee Serigne Fallou Mbacke ndég na déwén boo fi ñëw yàlla nga indi ay milliards barke Cheikh Mamadou Fall jërëjëf sëñ Souleymane sëñ Saliou Gueye bëgg naa nuyu ñu fi ne ñëpp. dëgg yàlla kon kilifa rafetoon na après ñu barkeelu béy rek incha allah saa si ñu barke. رديت للمولى تعالى لسي ربا فادي ونادي وكرم بي ربا رديت للمولى تعالى لسي والمرفقات والآل وكرم بربا بغدر الدنيا مبدا لوبيا خدم دواما للذي اختاروا بابي خرخني اليوم مبدا بذكري rizqi laki min al-janab القدس ولم ولا خصبا خرجوا في الله من كل باطل وفارقت تدبيري بيد فوجلبا رديت به ربا كريما مكرما وخان لله والحرب والبار وطبا لسير المولى بردي سوي الفراق ولوجه الباء نويت هنا رجاء توبى باسمي وعودة جسمي وعودة خلقا نويت هنا رجاء لتوبى باسمي وعودة جسمي وعودة خلقا ما ينفع أخاصني منا من الكون مرغلا وزارك نار الخير لمر ما ينفع أديتي إلى جمعة ثانية من أموار من أباب خانية أديتي بعد المرة رزقنا من كل عنا علي غير زنواتنا زدنا أبكارا دائمنا من دلو زعني وزواب الخلدا قلبي سبات بكون ربي خير هبي ولي جالك قدر الخير وجعل بما قضى ومقضى وكونه لكمنا يمقضى فرج بالله الكريم الرزق وإذ موسم المخرز فرج الكريم الرزق وإذ موسم المخرز

yori kusam ma der no defini no magal borom bay teg ma ca ma bay se xaw bal mo metti na nii ci daraja yi maam Cerno Ibrahima ziyaare la ma ko jokkoo daal xam-xam baro na xam-xam mbiraan yal na mbokk yi man ci duniya yow taxal màggal maa ngi si mu taxaa ba siiw yaa jër ñu war jigéen ñëwoon leen yaa jar baax wa mbàcke bi tekki tëri yaa duñ jël ndeer suñu yeboo ba mamar sama kër toog kër toog kër toog ndax bis yi dama bëgg ñu sax suñu tubaab ñu koy yëngu yëngu yëngu yëngu yëngu dama bëgg ñëpp du taxaw di def nii def nii def nii ma woy suñu tubaab ku du taxaw daal yàlla boobu tànk yi métti gudd fan ak du yor bëri xaalis bu kenn am topp rek bu ngeen bu ngeen ñaan ko na ñëpp ku sëpp Sëriñ Bamba topp sëriñ Bamba loxo silfa looy borom ki dégg sa mooy borom bogo mooy bayu Allah di baara mooy bayu bayan kon ku topp sëriñ sayu loxo am na sopp yi borom jannatu may sa lay borom du tëndu mooy borom mooy bayu si Seex Saaliw bayu seen borom kusir salu dangane gënum te defar gënoo li gën jinum sayun daxle bëri na ko ka fa def ñogo dindi fi jëme gën mbire yaa ci man bi laa seet samay borom na kenn bu saa lii kam basir بالمرد والمكفي ما تواج والأسان الماء خلد وانسيف والأرمان واجهني سبيح بتفسير إني قديم النور والبصير إني دمر بصير بصفاوان من كدير وجعلان بالنواي donc tu baax sin sam sin sam wàññi ko tuuti si Ablaye suñu papa sama xarit na ko di bu baax moom mii te nekk ku baax àdduna sépp xam ko waaye mu oyofal jëmmam ba ñëpp ñeme ko bu yàggul rek am na ne émission Touba TV bu muy jógee bu muy dëgg di rek muy ku baax nga xam ne moom boo leen tegoo jotaay lu mu gàtt gàtt dinañ wax ki si biir la mu sa dégg di kilifa di baax fonk si am daan mi ñëwaa na nga ñëw tàkkusaan te doo ko fekk fii ci di bërëb liggéeykaay mu ñu ko baax te ngéej loolu loolu mën naa ko seede ndax yow moom boo ko la xamee mi ngi bëgg a yàq bu ngay dëkk ci fee côté Yarax gële boobu maanaam ñaari taalibe dong nga am Sëriñ Saliou mi ak sin Fallu boobu lay xam tay bobu ñaar ñaari taalibe dong nga am muy Sëriñ Saliou ak sin Fallu boobu nak tay mu bëgg ba sem Laat mi dafa nek koo xam da bax mom la mu jeexam Dakar waye ni ma jappé tax mom ma jappé ko bi ñu doon gisee ak safara fi dama gis ma top ñi den nañ mom ni mu jël téléphone génn sama vidéo ni dama lay bëggee ñu paré mu melni ma mo xamanteni fu kër mu yëpp ma këram jox ma xaalis bay ba pare jox may teraanga maa moom jëlaat nga xamante ne waaye maa ngi bëgg tabax di jub yaraax gi sa di ma tax ginnaaw yàlla tamit ku mu fa xamaan sa di ma tax yow ba bu fi keneen ñëwoon am mbàkk mbàkk ak jànkatu fi ñëwoon ku ñëwoon boo waxoon waaye yaraax gi ne nag boobu kenn faale kenn du ko faale fi yaraax yàlla teg loolu yàlla defal maa ngi siyaar suñu xaadim bamba bamba bamba électronique bu baax mi nga xam ne dama ko nuyu léegi mu jox ma fodd yaa ko ba mu joxoon ndaw fóol moo ma joxe ren mu ngi ko waxtaan bi nee na ba mu paree mu jox ma ko loolu ndaw di jaar si Basiru Guèye mi xaadim ma xam ne suñu saal si Julé Magne mu si Mourtala suñu saal yi si ñaw laa ñu ngi tudd baax di jàng guddi fan wér daraja suñu tubaab am na mbégte